asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi nuy seetaan di ñu déglu ñu del suwaat sunu jataay bi nga xam ne dañu ciy dalal ay politiciens ak ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu diine ak social ak lépp suñ Xaadim Jeng lañu ci dalal dëkk fii ci tuubaa di yëngu ci politique ak ci wàllu social suñ Xaadim maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay lu bari Serigne Saliou di rafetlu bu baax invitation bi di la sant di la gërëm di nuyu mboolem ñi ñuy suivre ci site internet bi 24actu sëñ xaadim ku dellusiwaatoon tey ci présenté kan mooy sëñ xaadim looy wax. sëñ xaadim Dieng ndongob sëriñ Tuubaa bu yaroo ci loxoy Cheikh Abdoulaye El Hakim Mbacke moom sëñ Bassirou doon koo xam ne li ko ñor daal mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëkk bi. rawatina ci population bi ñi nga xam ne seen loxo jotut seen ginnaaw maanaam ci wàllu social. loolu daal moom sama dund ci loolu laa ko bëgg def. bu ñu tuddee social mooy kuy jàppale néew ji doole ji ak ñoo xam ne dañoo tollu ci jafe-jafe bu ñu doon wax Sëñ Xaadim lan mooy eh, kiyam fan lay jëlee lu muy jàppale nit ñi lan lay wax. waaw léegi xam nga ñun ay businessman lañu yoo xam ne am nañu ay relation ak ay kilifa yoo xam ne. Euh, suñuy nit lañ te bëgg nañ lu baax mm-hmm. ñoom ñëpp mu doon ci ñoom buñ toogee waxtaan ak yow la nga man danga ko def booleeg li ñu am ak su néew ñu mën a daal di am lu ñu dimbalee ñooña ca wet gañ bëgg ku leen ca dimbale ndax it ay pàcc yi pàcc la ñii dañuy bëgg lii ñuy bëgg lii ñuy bëgg lii ku ci nekk rek la nga ca man nga def ko ci waaye ñi ngi koy seqal ñëpp daal ay nit yu social lañ comme yow ñoo xam ne lu baax lañ bëgg te it nag wax dëgg yàlla loolu jàpp naa ne kenn waru cee jiitu président de la république ndax nit moom bu jiitee am réew lu fa nit def rek mu jëm ci askan wi moom la ko defal moo tax euh, suñu loxo ñu jëmale ko ci moom waaw ndax am nañ ci moom yaakaar euh, taxawaayam rafet na ci suñu gis-gis euh, te wóolu nañ ko. social lu ko jotee politique. waaw dama jàpp ne sax man politique bis bu set mu wax ko mën naa ne dama daan wax sax quarante pour cent yi waaye 60 pour yi social la war a nekk parce que politique mooy li nga xam ne moo mën a développer am réew ab dëkk rawatina dëkk bu mel ne Touba nga xam ne tey amul ay usine nit ñi gisuñu ay société yu leen di embauché ñu liggéey. ñu ci bari seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo ñu état leen war a dimbali waaye social la leen mën a dimbalee ndax waxoon naa ko fii am na ñoo xam ne xëy na mën nga dem financer leen ñu liggéey ndax toll nañ foofu waaye am na ñu egg gut ci mën a jël financement pour liggéey parce que ñooña seen doole néew na néew goo xam ne boo leen joxoon dara day seey ci seen loxo te en général ni ñuy defee financement mooy jël xaalis yóbbu ko ci banque nga dem foofu ñu lay financé ngay liggéey di remboursé banque bi ñu lay tegal ay intérêt loolu ñu mënuñu ko liñ man mooy social ay fonds perdu yoo xam ne dañ leen koy yóbbul jàppalee leen ko ngir ñu mën a am lu ñu jàpp ñoom waaye balay loolu it am na lu leen état mënal mooy taxawu leen ci yenn euh, problème yi nga xam ne ña ngi koy dund te mu doon loo xam ne nit waru ko dund li mel ni ñàkk am ndox xam nga lu métti ci doomu aadama la ndax nit su yeewoo ndox lay njëkk a soxla. Dakar gi Macky Sall dëkk fi ñu toll ndox la ñuy jàmbat bu baax a baax ci manqué gi. waaw xam nga Dakar seeni i robinet xëy na mooy tëj. léeg-léeg ladd guerre bi day am problème machine bi ñu ne li mooy lii wala la SDE di wax Touba nag foofa fi ma lay wax dañoo amul ay robinet for ñoom. ñoom dañuy dem feneen fu am ay robinet pour man faa amee ndox. ndox fa eggagul. waaw ndox fa ndax ndox sax doon na eggu fa ndax tuyaux central yi dugg ci dëkk bi yëpp ci seen quartier yi la jaar waaye ku amul doole mën a dundal sa bopp ak sa njaboot doo mën a am doole di xëcc ay teew muy dugg sa kër. léegi ñu dikk sëñ Xaadim day politique kan ngay jàppale. président Macky Sall. kañ nga dugg ci parti bi ak lan ngeen liggéeyagul. depuis 2012 maa ngi ci Macky Sall waaw. depuis 2012 maa ngi ci Macky. yéen seen eh, Touba da xamuñu seen social ñu fi nekkal yi moom xamuñu ne dëkk bi yëgu na ne ñu ngi koy jàppale ci wàllu social ci wàllu yi ngay wax nii yooyu sax bokkul woon ci seen programme. waa xam nga euh, social moom dama jàppale sax du homme politique rek la engagé. social képp ku bëgg lu baax. da nga ko war a def ndax asaka sax ci social la bokk. te gis ngeen ne population bi am na ñoo xam ne. buñ xëyee ci biir dëkk bi la ñuy ñëw. jóge ci sancaan yu sori ñëw ci kër sañ bi rang ngir sañ bi dimbali leen ci dund dépasse yu ñu joxe seen kër bis bu set bu ñu xëyee dinañ ñëw sañ bi joxe dépasse boobu sañ bi nag loolu am na ñoo xamante ne bi war nañoo mën a organiser wu ba man ko ci taxawu jàppale ko ci ndax moom talut loolu donte dina ko def te war na koo def it waaye wax dëgg yàlla am na loo xam ne ñun it mën nañ ko te war nañ koo mën a def. lan ngeen def fii ci social ci président Macky Sall ak leader yi ko fi nekkaloon ak yëpp. tàmbalee ko ci Cissé Lo ak yéen lan ngeen fi def Cissé Lo de moom dinay tudd social yu bari. man nag jàpp naa ne mboolem ñi ma sa politique ci Touba waxuma sax ci APR kese waaye ci Touba moo ci gën ci Touba. parce que moom moom Cissé Lo parce que li tax mooy du bari dina ko def. loolu muy wax am na ci loo xam ne man xam naa ko man mosumaa defal dara mosumaa gisit dewuma ci moom waaye gis naa ñoo xam ne. jàppale na leen bañ am ay kër jàppale na leen bañ am liggéey jàppal na leen ba situation yu metti yañ doon dund ñu génn ci leen lu ngeen defal nit ñi da ngeen koy waxaat ci yi yeeg télévision yi. déedéet man nag defuma loolu. si si loolu da koy def. waaw lool moom mën na koo def moom waaye man du ma def loolu. rafetlu nga ko wala. déet xaw xam nga nit ku nekk nag ak ak gis-gisam ak ni muy doxee man ni may doxee laa xam waaye li ma xam daal mooy lu mu def moom. wóor te fëgg dënnam ne def naa ko ndax lu ko war la ndax politique nit ñi noo ñoo tax mu egsi fi mu egsi tey. base politique yi nit ñi la ko seqal doomu aadama yi mu doon dimbali noonu ñoo ñoo ko jàppale ba mu yegg fi mu yegg keneen ku mën a doon it noonu rek lay demee ñoo ñoo lay taxaw jàppale la. yëg na askanu Touba leen yéen politiciens yi. problème Macky Sall ndax defagu leen fi dara. ñenn ci politiciens yi ngay wax mere nañ leen parce que li ko waral mooy askan wi moom ba fi mu ne nii. Mm. yëguñu ne politique yi ngi dox ci dëkk bi. Mm. ci côté yu bari. da ngeen a liggéeyalul président Macky Sall. non du question ne dañoo liggéeyul am na ci ñu liggéey waaye damaa bëgg liggéey boo gis su fekkente ne groupe dañoo ànd. am lu ñu bëgg. ñoom ñëpp dañoo war a fexe ba liñ bëgg ñu déggoo ci ba pare buñ ci déggoo ba noppi ñu organiser ko ba nga xam ne ki ci bëgg a joti dina am du am problème bu jot ci ndax fi mu ne responsable yi boo ci recevoir tey trente personnes jox leen ku ne un million ñu dem seen gox yi. du tax situation yi réglé. situation yi li koy réglé dëgg. mooy leader yi ci boppam. wàcc ci dëkk bi dem campagne yi. avant campagne sax waroon nañoo dugg ci dëkk bi xam problème yi du waa dëkk bi ba xam nuñ ciy taxawee ndax it jafe-jafe am na fu mu am. Sall da nee na porte à porte ngeen war a def. waaw porte à porte boobu man ci laa nekk. yéen yéen yi pose benn yéen ñi nekkal Macky Sall fii benn question boo xam ku leen ko posé woon ñi ciy tontu ñu néew a néew la ñu gën a mag ba tàmbalee ci Cissé Lo moom nga ak ñi ko wàccaat ak ñeneen ñi fi teewal mag Sall bu ñu leen laajoon quartier yi ay umul xoraa ay kër bitigu Baye jóob ay quartier nu te new ga ay sancaan yi yooyu sancaan mësuñu faa teg seen tànk xamuñu leen sax ku leen laajoon ba Macky Sall dikkoon laaj leen ci quartier yooyu ne leen fu mu nekk dama bëgg nga yóbbu ma leen ma am na ci ñoom mënuñu ko faa yóbbu ndax xamuñu ko. man si samay démarche fexe naa ba président Macky Sall xam ne Touba am na quartier bu tudd bu xatal Mubarak quartier booba 38 délégués de quartier la am am nañ tel problème tel problème tel problème waaw loolu man lijjanti naa ko fexe ba mu xam ko ba mu xamal ko boppam bu fekkee kenn waxu ko ko it man lijjanti naa ba xam loolu. loolu ñuy seen jafe-jafe ñoom. li ci ëpp mooy ndox ak courant ak i yoon amuñu yoon ndax quartier bu toll noonu boo xoolee boo xaymaa dëkk bi moom moo fi ëpp ndax cent 150 mille habitants fu ñu am xamal ne foofu doona tut fu ndaw ndax bari na département yu ñuy xëccoo te ay 200 000 300 000 gën ngaa bari. kon kooku quartier boobu bari na département yu mu ëpp. te tey ñu ngay dund ay jafe-jafe yoo xam ne bu président soloon dàllam dem fa dina gis ne lii ko Khadim Dieng di wax lu dëggu la dara du ko dindi. loolu xanaa moo tax li bokk ci suñuy wote fi mënu fee gañe. waaw bokk na ci ndax damay wax ne toujours Touba ñaari catégorie ñoo fi am ñi ci kaw ak ñi ci suuf ñi ci kaw mooy ñi yilif dëkk bi sëriñ seek yenn homme politique yi nga xam ne àgg nañ am nañ accès ci sëriñ si ñooñu ñoo nekk ci kaw ñi ci suuf mooy population bi nga xam ne. amuñu droit jug demal seen bopp ci sëñ bi parce que seen i teggin xëy na mayu leen ko wala amuñu accès boobu mënuñoo joti ci président de la république ñooñu bu leen président bàyyiwut xel wut ñu ku ko demal ci ñoom rek jafe day am ndax ñee moom am nañ respect ci ñoom boo xam ne wutuñu leen ci wet googu léegi président bi nga xam ne nag moom askan wi moo war a taxaw ci seen i jafe-jafe moo war a wut ñoo xam ne dañuy wàcc ci terrain bi xam jafe-jafe yooyu ñëw rendre ko compte mu saafara ko ndax du li leen waa Touba mere ni ngeen di nguuroo ni Macky Sall di nguuroo ak ñi mu bàyyi fii Touba ñu yor seeni oto di dawal di def yoo xamante ni nit ñi teg ci bët barki Demba Ndiaye gis ne nit ñi ñoo yemoon ñu am dépassé amuñu benn gestu bu nu gestu ci yooyu boo demee ci sancaan yi man mii ci dëkk ñeneen ñi ci dëkk garabu yoo bi jar juróomi dërëm rek problème la ci ñoom amu amuñu hôpital amuñu dara yoon yooyu nga wax xañ ne yooyu amu ci yooyu sax damay jàpp ne Touba di ko jàmbatal politicien di ko dikk di ko wax Macky Sall moom dukki kii ndax loolu ci loxol sëñ bi la nekk loolu responsable waaye am na yeneen jafe-jafe yoo xamante ni war ngeen cee egg waaw. waaw waaw loolu li ma ciy wax mooy comme li nga wax nguuru gi man li ma gëm mooy président képp ku mu jox poste nga am looy gañe ci moom la ngay gañe war nga cee jox saw askan ak koo mën a doon. man loolu laa gëm muy homme d'affaires bi muy ministre bi muy député bi muy ki nga xam ne sax dafa am moom relation ba noppi mën a jariñ aw askanam kooku moom. responsabilité bi moom la gën a war sax ci président booy xool parce que moo war a xam la fa xew wax ko ko musaafara ko suñ demee ba nag tey ki nga xam ne day falu li muy gën a xool mooy lix bu ñëwee ca kaw lay yem sëriñ si lay waxal après génn dem faaleetul ñi nga xam ne bu ëllëgee ñoom lay soxla pour ñu dem voteel ko loolu problème rek lay indil président du ko gagné du tax mu gagné dara. waaw li gën a li war a gën a tax daal li war a li ñu war a gën a taxaw mooy fexe ba ñoom ñi nga xam ne dinañ am ay marché te nekk ci ginnaawam wa ilaa ñu am ay ay ay ay salaire yoo xam ne état leen di fay dañ bokk ci dëkk bi bokk ci nekk ci gouvernement bi ñu fexe bay jàppale askan wi. yéenu Macky Sall ñan la ñu nekk Touba yéen yéenu Macky Sall ñan la. non groupe la. yow am na ci ñoo xam man am na ci. kan la. tudd nga Moustapha Cissé Lo léegi. moom dëkkatul moom waaw. mais am na fi kër am na fi kër. fi la dëkk sëriñam fi la nekk. kanaat ak kanaat. Abdoulaye Sadaga mi ngi fi. ak kanaat maam Xari Mbacke. sëñ laa soxna maam say Mbacke mi ngi fi. ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi xaw nañoo bari. ñooñu ñëpp nga wax ne ñu ngi dëkk ci ville bi xamuñu sancaan yi sax man damaa jàppoon ne ci politique ak ñu xam ko. boo demoon dakaar dañ ne Dakar mooy première capital Touba di deuxième boo demoon tey Diop Sarr ñu ne la ma nga dëkk fenn Euh, kii Ndiaye Abdou kii waa ji Ndiaye Mbaye Ndiaye ma nga dëkk fële kenn responsable yi yoo nekk maanaam Touba ñii fi nekk ñëpp ci benn ñoom ci kii bi lan dëkk ci wiilu Touba lan dëkk kenn xamu ci sancaan yi loolu ndax mën ngeen a gañe ak sancaan yi nin tollu ci réew mi ci ci dëkk bi na ma euh, sax benn sama benn xarit ñuy waxtaan ba egg ci loolu ma ne ko man de yàlla seede na ne su doon ne tey damaa am kër gu may defal Touba mu nekk milliard bu xatal mbaaraka laa koy def parce que tey man sama investissement bu bu njëkk. ci luy tax dëkk bi développé foofu laa ko bëgg a def ndax damaa xam jafe-jafe fa ne te tey aw ma lu ma gënal jege ñooñu. ci ci Touba gii aw ma aw ma ko gënal. jege ñooñu ndax ñooñu ku leen jege da nga leen jàppale te ku leen jàppale sëñ Touba nga liggéey la. élection yi Touba te am ngeen yaakaar ngeen gagné fi Macky waaw am nañ yaakaar nax bilan bi nag. am nañ yaakaar it ba tey ndax population bi seen xel ubbiku na bu baax nag ndax am na côté yoo xam ne dëgg la jafe-jafe yaa ngi am ba tey. bilaa bilaa mi ngeen di wax bilaa <laughs> bi bari na sëñ bi waaw mi ngi liggéey moom kenn du na liggéeyut. waaw def na fi autoroute Ila Touba ak yeneen ak yeneen yu muy def waaw ba noppi te doomi dëkk bi am na ci ñoo xamante ne bi jox na leen ay ndombee tànk. ñam ministre amatul Touba moom. ah ah maam Thierno fu mu dëkk maam Thierno Dieng. Ah, waaw xaar bi Diop it yàlla la léegi. waaw ñoom ñëpp ñu ngi fi amul kenn koo xamante ne dem na kay. li nga wax dalul sa xel de <laughs> dalul sa xel ministère yoo xam boo leen tuddee kenn du leen xam boo tuddee ñooñu kenn du leen xaw. man liggéey bi sax ajuma ko ci ministre man déedéet man ajuma ko ci kii dafa am. yow tey buñ la faloon ndomba tànk lan ngay njëkk a def. xeexal dëkk bi population bi ñi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe ñoom lay dëkkal ñoom lay waxal. waaw du ma wax ak keneen. waaye dañu naan woon kuy wut aw nit doo seexlu wenn nit te yéen dafa mel ni seen mbokk yi danoo xaw a euh, bëgguma wax ne danoo xeeb sancaan yi waaye xamuñu leen. complexe rek laa ko tuddee ndax xam nga lu tax doomu aadama ki la ciy jariñ moom nga war a gën a jege. te politicien kiy voté koy jariñ te sëriñ si nag bu caaxaan jeexee dëgg des kenn demu ci urne di wote. kon ñee ñooy voté ji ñooy dugg ci ay kaar ak dugg ci ay seret dem di voté ji ñooñu la ñu war a jege ñooñu la ñu war a jàppale. suñu xarit ñu daanaka sax xam naa ñu ngi jataay bi ak. Euh, taxawaay bi euh, wax naa la mun la faloon yow ban responsabilité ak nen nga ne da ngay dem ci population bi population bi bala nga fay dem war ngaa xam dëgg dëgg nañ seen jàngoro xam tamit lan la tuubaati war ngaa xam lan lan meree mag saa xam ko moo tax ma bëgg la ñu jege. Mm-hmm. wax naa la ko léegi. ne la gisuma lu ma gënal dëkk ak ñoom. Mm-hmm. gisuma lu ma gënal ànd ak ñoom saafara seen i jafe-jafe ci li ma ci man yëg nga ne sañcaan yi ku fa nekk yor oto daanaka ambulance nga yor. bu baax loola laa xam man. li ma xam mooy. ndax man dem naa fa nawet. Mm. dem fa noor. Mm. kon xam nga xam naa nañ fay demee. Mm. na nga fay demee nawet bokkul ak na nga fay demee noor. Mm-hmm. tey ambulance boobu ngay wax. su fekkee ne nawet la. lay doon lay doon ambulance oto ba. waaye bu dee nawet kon saret mooy doon ambulance. ndax ndox moom bu fa xasee am. oto du. déedéet damaa gis bi mu nekkee ki dafa defoon système bu xamante ni dafa ne suñ baara dolli li mu ko fi doon defal defalul ko ngir politique daf ko koo defal ngir xañ na xaritam wala dara mais du woon politique moo taxoon mu tegoon ko fi. Ah, tolloo waaw dafa yàgg waaye loola est-ce que système boobu baaxul woon sëriñ si mu seq ak ñoom addiya ak siyaare ak yooyu liggéey bi nag mu teg ko ci loxol ñoo xamante nii xañ na. Ah, am na ci ñoo xam ne moom euh, gëm gëm nañ ne bokk nañ ci ñi war a développer séq nañ ko nit ñi yàgg nañoo def ay financement yàgg nañoo jàppale nit ñi. Mm. wax dëgg yàlla. Mm. ñooña ala kulli alin dina leen jëli parce que soxla na leen ñoo ko gën a maîtriser loolu bu dee ci wàllu dëkk bi mm. waaye dacee am ñoo xam ne nee la dañoo séqut ak askan wi politique. politique askan wi amuñu ci ñoom benn accès bu jar ñuy dem ci ñoom di leen jàppale. Mm-hmm. dégg nga nit ki ak daraja joo mën a am. ci àdduna. ak koo mën a doon ak ku la mën a jur boo xebee nit ñi ñu bala. ak koo man a doon. te ñooña damaa gis ne man ci sama gis gi dañoo xeeb nit ñi. Mm-hmm. parce que foofa. Mm-hmm. ca sancaan ya mm-hmm. bu fa ab chef de village jóge woon. ñëw bëgg leen a gis. dañ koy tëju. bu leen woowee téléphone duñ ko jël. ñaaru mbootaay bu fa jógee. ñaaru mbootaay sa taful di wax chef de village laa wax de. ka jiite foofa. bu ñëwoon bëgg leen gis du leen gis. kooku xam nga ne xalaatu sol aw dàllam. dem sukk ca seen kër yee di añ. du ko def ku mënut loolu nag seqoog nit ñi politique. nit ñi dangay wàcce sa bopp ba tollook ñoom waxtaan ak ñoom ñu déglu la waaye boo leen wanee ne ñoo leen maa leen tiim loo leen wax duñ la déglu sëñ Xaadim yaakaar naa ñu ngi ci kàddu yu mujj yi lan ngay tàggoo ginnaaw bu ñu la santee bu baax a baax ci wuy si gi nuyu ci jataay bi ñu dalal la nga nekk fi tamit Touba responsable boo xamante ni yaa ngi yëngu ci politique waaye système bi nga jëlit ñu sant la ci ndax social la ku xam Touba xam ne loolu moom vraiment dañ koo war a jàppale sëriñ bi ci dëkk bi ndax dafa bokk ci loo xam ne ñi fi dikk sëñ bee leen fi indi xañ na seen doole amul loolu yaakaar sëriñ bi moo ngi képp ku teg dara ci seen loxo mel na ni sëñ bi nga ko tegal ci seen loxo toog ci dëkk bi loolu yaakaar naa ne sëñ bi nga ko defal yow nag ñu ngi lay sant baax ci ni nga koy defee yan kàddu ngay tàggoo bismillah sant bu baax di gërëm di la sant bu baax di la gërëm ci invitation bi encore une fois di wax ne population bi daal euh, nañu bàyyi xel bu baax ci homme politique yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi mm-hmm. te la leen war mm-hmm. ci taxawaay dëgg mm-hmm. defuñu ko léegi nag président Macky Sall mii. Mhm. am na information que mhm. problème sàngam ak problème sàngam am na ci quartier sàngam quartier sàngam. Mhm. dina ko saafara. loolu démarche yooyu def nañ ko ñi ngi ñaan yàlla nag ñu réussir ko. jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi nu doon seetaan ñu tey ci fii ci seen 24 actu ñu dalal sunu gan tey muy Serigne Khadim Dieng responsable politique nekk fii ci APR di jàppale Macky Sall euh, nekk fii ci Touba boole tamit di social nekk li nga xam ne mooy nekk li mu wiise wu ngir jàppale ci ñi nga xam ne néew ji joole lan te nu nekk ci nekk ñoo xamante ni ay nit ñu bare bare la macha allah ñi nga xam ne dañoo ñëw seen ginnaaw jot seen loxo jotut ci wàllu courant ci wàllu ndox ci wàllu. wàllu hôpital ci wàllu social lu nu dunde sax li nu dunde lu nu dunde loolu yaakaar naa ne ku ko def dañ lay san ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox daje ci beneen jataay